dal leen ak jàmm soxna Aida jàlloo boroom xol bu rafet yaatu loolu ba ñu koy woowee mère Teresa de Cantakun maanaam yaayub Cantakun yépp taxawaayam bu am solo leeroon na ñépp ci biir kuréelu Cantakun yi waaye bi fi borom këram Serigne Cheikh Béthio na jóge ko wuyu ji boroomam ba léegi ci la soxna Aida jàlloo gën a siiw gën a fës gën a dëggal boppam moom soxna si jamono ji bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu ëpp lu ñuy joxoñ ay baaraamu tuuma dëkkal ñu dëkkul dem nañu sax ba di ko ñaawal ak di ko tëkkalee ak sën waaye loolu yépp teewul benn yoon moom soxna si di dëggal mbaaxam ak di fësal njàmbaaram xol bu yaatu la yor te lu ko waay wax du tax mukk mu daal di lay tontu kàddu bu ñaaw daanaka sax dafay faral di gëmm bëtam ci lu bari ci ay kàddu ñaawal der yu nga xamante ne ñu ngi ko koy sànni bi lee doxalin dëppoo lool ak kàddum nasoraan sii di wax ne le chien aboie la caravane passe maanaam lu xaj bi bow bow du tree daamar gi moom yàlla dem yoonam lu ñu ko mënti waxal moom xoolul ginnaawam li ko soxal dëgg-dëgg mooy li ci kanamam ak naka lay def ba saxal ak sax yokk liggéey bi nga xamante ne borom këram woona di sëriñ Seex Béthio Thioune jotoon na ko amal ci kuréelu murit ab cantaakun dëgg la te foo ko fekk mi ngi jëmmal pas-pasam ak di fësal taalibeem ànd ak loolu saay su génnee moom ak ñi mu àndal seen jàpp gi ñu jàpp ci buumu ba sëriñ Saaliw Mbàkke ca na ko njiital cantaakun ya woon di sëriñ Seex Béthio Thioune daan defee lépp lu cheikh bi daan def ci ay taalibeem moom mi koy wéyal moo ngi dimbali ak jàppale lu bari ci ay njaboot ak i néew doole ci biir réew mi bëri na ay famille yu nga xamante ne ndem amuñu fu ñu nekk moom soxna Aida moomule moo leen di fayal loyer ànd ak loolu itam moom moo leen di jox lekk di leen jox naan fu ne lañ koy woowee ci ay cas yàlla mu di ko lijjanti di ci def alal ju bari te kenn yëgul moom soxna si mu ngi dox ay jéego yu am solo ci wàllu dimbali ak dooleel yenn ci néew doole yi lu bari ci néew doole yi ci yi ci réew mi waaye ay jëfam yu rafet lu bari ci réew mi xamuñu ko ndax rek ñi koy waxal lu ñaaw ñoo ëpp fuuf ñi koy waxal ay mbaaxam ànd ak loolu nekk na ku am sutura ndax du def mukk ba nit ñi yëg ne def na ci jamono joo xamante ni ñu bari ñu ngi koy joxoñ ay baaraama ak di ak di ko dëkkal fu mu dëkku la moom soxna Sile mi ngi wéyal mbaaxam ci suuf ak di yokk teraangaam ci lu bari ci ay sénégalais yoo xamante ne moo leen di jàppale jërë ngeen jëf